ndaje bi tay bi nga xamné inspection du travail bu Thiès mo ñu fi invité moy euh déplacer inspection du travail euh, pour rencontrer pour dajé ñi nga xamné ñoy ñooy kat yi wala sen jaati bi ñi nekk ci kuréelu liggéeykaay yi pour que képp ku ci am euh, soxla ñu mën la ko fajal ci saa mo xam dafa am loy laajte ñu tontu la ci wala keuyit bo wara déposé wala nga récupérer ko wala nga xam contrat bo wara déposer wala ngay laté lan moy àq ak yelleefu kat wala àq ak yelleefu ki koy lo wala ngay laajte lu jëm ci walu sécurité et santé au travail lepp lu jëm ci karangé ak wér-gu-yaram ci biir kay bi wala ngay laajte aussi lu jëm ci walu protection sociale parce que même wa caisse ak wa IPRES ñu ngi fi pour tontu ci walum birum euh, ni ñuy calculer mbirumu retraite pension yeeg yooyu euh, cotisation yi naka lañ koy déposer ban montant la euh, lan lañ wara def pour xeex fexé ba ay accident du travail du lu ci entreprise wala mo baña am et cetera donc vraiment euh pàcc yi nga xamné mom lañuy la fi dafa bëri am solo motax ñu ngi ñaan vraiment waa Thiès euh rencontrer suñu équipe yi fi euh dinañ leen mëna a tontu ci lépp li nga xamné moy sen euh solo bu ñu amee aussi ay jangoro wala ay jafé jafé dinañ leen dinañ leen wax yan yoon la maye lan yan yoon le le le code du travail maye pour ñu mëna a ba nga xamné dinañ mëna a euh, xeex loolu nga xam ne mooy jàngoro loolu problème administration la il faut que administration mu def euh, mutation il faut que administration ubbeeku bu nit ñi nit ñi certes ñu ngi fay ñëw di ngeen gis ne liy ñëw inspection du travail bëri na lool ci wàllu contrat yi ñuy recevoir ci wàllu conflit yi ñuy signaler ci wàllu différents euh, collectifs ak individuels yi ñuy lijjanti mais loolu du doy inspection du travail waru rek toog di xaar dafa war a fekki population fekki travailleurs yi dugg ci entreprise yi fekki employeurs yi expliquer lan mooy mission am lan mooy ay prérogative am ak jox leen aussi ay conseils pour que ñu fexe nan lañ mën a prévenir yenn jàngoro yi wala yenn conflit yi ba nga xam ne yooyu du ñu mën a survenir ci biir entreprise bi parce que bu entreprise bi amee problème mooy koom-koom bi am na problème bu koom-koom bi amee problème mooy liggéey dina jafe mu sax ci réew mi wala sax mu am donc il faut que ñetti parti yëpp di taxaw di waxtaan journée yi mel nii baax na waaye bu journée yi passé inspection du travail dafa war a continuer jox nañ leen digal pour que ñu ubbeeku di déglu nit ñi di leen recevoir di taxaw ci li nga xam ne mooy seen ay jafe-jafe yooyu yëpp am na fii dinañ leen jox euh, am na rapport euh, annuel des statistiques du travail d'ailleurs bokk na ci solob ndaje bi dina leen jox euh, chiffre par exemple contrat yi nga xam ne Thiès recevoir na ko ren mu ngi ci rapport annuel des statistiques du travail dina leen wax ñaata conflit la Thiès lijjanti ci année bi ay conflit individuel de travail wala ay conflit collectif dina la wax ci biir conflit ñaata PV de conciliation moo fi am ak ñaata PV de non conciliation yan la inspection bi lijjanti ba nga xam ne euh, sotti na ak yan lañ yóbbu fi nga xam ne mooy euh, tribunal dinañ leen jox aussi ay information ci euh, ñaata élection de délégué du personnel la ñu organiser à Thiès ci biir élection bi ñaata délégué lañ fal ci délégué yooyu ñaata jigéen moo ci am et cetera et cetera dinañ leen wax aussi ci statistiques yi euh, ci wàllu Thiès rek ñaata comité d'hygiène et de sécurité au travail moom la ñu installé par exemple en 2022 et cetera loolu ñu ngi ko doon wax mais changement yu bëri am na ba loolu daanaka euh, liñ koy gis léegi bëriwul parce que wax dëgg yàlla nguur gi am na matukaay yu mu jël pour que inspection du travail léegi wax dëgg yàlla muy ci wàllu nekkin ci wàllu payoor yëpp dëgg yàlla am na ay amélioration donc euh, ñàkk dem nag bon kenn mënu ko prévoir parce que loo am am euh, euh, naataange mën nga gis leneen nga dem mais wax dëgg yàlla lañ doon wax moom condition yi moom changé na bu baax